ne jamono ji moo am ginnaaw bi njiitu réew mi di waxee ne du bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gii di Les Échos nee na bi nga xam ne waa APR doon nañu ko def ak Macky Sall kaddu yi nga xam ne Mbaye Ndiaye yëkkati na ko fa dafa écarté Amadou Ba ngir mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar waaye du Mbaye Ndiaye rek moo ko écarté ki nga xam ne mooy Abdou Mbow moom tim kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko keroog ci kanamu Macky Sall maanaam moom tim dafa écarté mu daal di koy jiite ci Benno Bokk Yaakaar yéen a kaay gii di en tout cas Macky Sall tànn kan muy jiite coalition bi du nekk loo xam ne lu yomb lay doon yéen kay gi de libération moom njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay wax ne amul benn pression boo xam ne moo tax mu daal di deltu ginnaaw ci lu jëm ci wàllum sampandëndama moom Macky Sall nee na loole bu yàgg-yàgg la ko bindoon wax ko ne maanaam 2019 bu ñu ko falaatee mooy nekk ñaareel ak njeexantalu mandaam moom Macky Sall mel na ne lu tontu Ousmane Sonko nee na élection présidentielle 2024 danañu ko amal askanu Sénégal daal di tànn kan mooy nekk seen président moom Macky Sall ci lu jëm ci ci jàpp Ousmane Sonko nee na képp xam ne war nañu la arrêté danañu la teg loxo moom ji turamé ci journal bi de la Tribune daal ne ñaawlu bu baax a baax Emmanuel Macron bi nga xam ne yebaloon na ko ca Ousmane Sonko ndax ay jamono ñi nga xam ne ñooy waa France maanaam njiitu réew France Emmanuel Macron dafa am koo xam ne daf ko yónni woon ci Ousmane Sonko yónni gi Emmanuel Macron yónni kooku ci Ousmane Sonko ngir mu waxtaan ak moom metti na Macky Sall ba Macky Sall daal di koy wax Macky Sall nee na loolee nekkul loo xam lu rafet la di yónnee ab émissaire ci koo xam ne sama opposant populi Macky Sall nee na leen rek moo taxoon mu mën a présenté wu maanaam bu Sénégal duggoon ci kaw moom ji turóomi di président Macky Sall nee na candidat Benno Bokk Yaakaar dina ko soutenir dina ko campagne la lu jëm ci wàllum CPI Macky Sall nee na loolee ay caaxaan la yéen kaay gi di enquête moom Macky Sall li tax mu yéex a wax ne du candidat dafa xam ne su ko waxoon dëkk bi dafay taxawa ndax gars yi bu boobaa kenn du liggéey yéen kaay gi di Libération xëy dañu xibaar naan ñu Birame Souleye Diop ci week-end bi ci commissariat central la koy passé ndax dafa am ab retour de parquet quotidien yor yora nee na ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bii di ngexoxa ñoom jamono ji ñoo ngi ci dëcc ndax Ousmane Dia mi nga xam ne ci Pastef la bokk ci kasu bu mbuur la faatoo journal bi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu kook nga xam ne mooy Ousmane Dia faatu ci kasu bi manifestation yi nga xam ne moo fi amoon bal daf koo laal bi ko bal laalee mu daal di damm ba pare amee crise épilepsie journal bi nee na chambre 6 la nekkoon yi ni kay gi di Vox Populi ñi nga bi maanaam mbir mi tey na ndax ñoom nee nañu ci manifestation yi fi amoon ci la ñu ko tegoon loxo te nee nañu woon dafa amee woon crise épilepsie te nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu ko woon en charge médicale yéen a kaay gi de Le Quotidien yor yora nee na Almami Sagna moom tim tegoon nañu ko loxo ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn waaye ba léegi nii gars yi xamuñu lenn ci moom yéen a kaay gi de Libération nee na ministre Isaaxa Diop mi ñu dénk lu jëm ci wàllum inondation yi baye boobu mu dem waxtaane ji ak waa Sàngalkam ndax waa Sàngalkam mere nañu ko lool waa Sàngalkam askan woo fa yeewoo nañ bu baax a baax Isaaxa Diop yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu marché Seng dafa daal di lakk bëri nay magasin yoo xam ne moo fa tàkk yéenekaay gi de Direct News xëy duñu xibaar naan ñu docteur Cheikh Kanté mi ñu dénk lu jëm ci wàllum plan Sénégal émergent ma ngi woon ci kanamu intellectuel européen yu mag di fa jaay di fa kañ li nga xam ne mooy plan Sénégal émergent daan nay wax ne Macky Sall bi mu ñëwee ci atum 2012 ci bopp réewum Sénégal la indi am modèle b yees boo xam ne la ko wund bokk na ci génne askan wi si jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk ci pauvreté bi waaye tax ba Sénégal yëpp tolloo ay sens